li si yéenekaay yi ak Ami Dem Sa Ngor internet du 5 TV àllal ma seeni nopp ma dégtale li si yéenekaay yi dañu koy door ak Vox Populi yéenekaay bi di ñu xibaar ni Ousmane Sonko àddooti na ci Macky Sall ak ngàññ yi nga xam ne rek moom la koy ngàññ jëm si doxalinu liggéeyam bi nga xam ni daa jàpp ni baaxul journal bi ne yoon bi nag lu ñeel coowal suuf ak mafia bi ñu ne rek moo si am la daal di xam le ndax Ousmane Sonko daa joxoñ tuuma njiitu réew mi ne suñu suufu su réew rek da ciy business maanaam da ciy ut koppar ndax rek ay taax rek yoo xam ni état bee ko moom la daal di jaay dañu faree foofee ca biir Ndakaaru taxaw ba tax njiital Pastef ne Macky Sall gouvernement sobre bi muy mbubboo niruwu ko ndax rek sori lool ak doxalinam laatew bi di ko dëggal ndax fësal na ni toll si ñetti junni ak ñaar téeméeri appartement yu terme sud ak ko la ñu jaay ba tax yéenekaay bi ne dil wala njuuj njaaj bi am ci kaw bu tàng moo ci am ndax rek dëgg njaayum appartement yu état bi enquête ne Sonko li muy ñaawlu rek mooy dil si suñu si ñi nga xam ni nag ñoo seq suñu nguur gi Walf Quotidien teg ca ni lu ñeel coowal Terme Sud Sonko rek yàq na Macky sàll ndax xam le nañu rek mafia wala booloo di jëf ay ñaawteef rek moo ci am te waa état bi la les échos di leen ca feelu ndax fësal na ni Sonko bomb la daal di sànni ci mbirum suuf ak jaay ay taax yu askan wi yëpp bokk te Macky Sall la ko tuumaal ndax nee na rek du kenn ku dul moom njiitu réew mi ndax moom rek moo am sañ-sañu def lu mel waaye nag sonko moom ba mu set wecc ndax xamle nañu rek li fi sonko wax yépp rek amul ndax kenn jaayu ko te it nag kenn mayewu ko waaye nag ab booloo moo ci am di maanaam partenariat ci diggante état bi ak waa privé bi lii ko quotidien ne sonko ak Barthélemy Diaz ñoo nar a dakkal rek xeex neexaayu wala njariñu booloo bu waa Benno Bokk Yaakaar di amal ñu bàyyi kàddu Ousmane Sonko te jukkil leen rek yu démbéroo sow moom député bu Ranérou bi dañu rek Macky Sall bi mooy mandaawam bu njëkk te rek moo ngi xaar ba kenn ne rek réew mi conseil constitutionnel teewul bi nga xam ni rek mooy mandat bu juróom-ñaari at bi mu mel ni kon benn mandat bu juróomi at la fi def mu dese ko beneen mandat bu juróomi at mu teg ca ni nguur boo a baax ba mu dëgër mu teg ca ni rek ku leen ko bëgg a xañ ñu génnee ay jaas yi dal sa kaw le témoin quotidien ne kàddu yooyu nag nekk na lu ñaaw te it di déranger ba tax frappe France dégage yébal nañu ab plainte procureur waa Jamra ak ñenn ci ay député itam ŋàññi sew moomu direct news teg ca ni démbiru sow daa bëgg rek jaxase askan wi ndax rek kàddoom doom yooyu day andi xeexoo ci wàllu askan wala ci wàllu waaso yéenekaay bi ne suñu ñeenteelu njiitu réew mi nga xam ne nag fii ci réew mi la juddoo si ab dëkku séeréer ak ay waajuru tukulër euh, masul jéem a wane aada yi nga xam ne nag moo dëgëral sunu askan wi te woote démbru sew moomu rek mooy rey lu téeméer boo jël ñeent fukk yaak juróom-ñaar ci doomu réew mi nga xam ne rek wote ñu woon ngir Macky Sall te ñu nangul woon ko ak faloom journal bi ne li ci gën doy waar nag mooy comité discipline bu APR yéeyuñu si yàbbiwuñu séeréer ak askanu halpulaar woo nañu leen rek ci mbir moomu ngir ñu wax ci soosu àqi ak sagoom yéenekaay bi dolli ci mu ancien moom Alioune Dembourou Sow dëgër koo xam ni amul sago ci Macky Sall muy loo xam ni da koo ki nga ni moo di Farba Ngom Les Échos ne lu ñeel jaayuma carte ca moo di Bara Gaye ba noppi nag gën a dëggal boppam ndax rek yéenekaay bi xamle na gannaaw bi mu nekkee woon numéro numéro 2 bu PDS Karim Wade jëlee na ko fa moom Bara ba noppi nag teg fa Doudou Wade bi yokk ci ni rek Saliou Dieng mooy homme fort bu bees bu parti PDS ndax rek mooy dunguru ki nga xam ne moo di Karim Wade ba tax moom la ñu jox rek lu ñeel placement carte yi ci du quotidien lu ñu gis jamono ji ci suñu way politique yi wax yu amul benn njariñ askan wi rek la le quotidien fësal si xëtam bu njëkk ni gannaaw bi ñu toogee ñeenti weer te amuñu rek ku yor seen kàddu tiwaawoon moo ngi wër ku koy waxal ba tax xalif bi si ay porte parole yoo xam ni par bés rek ak ñun ci prévention di maanaam wattandiku jàngoroy sida yéenekaay bi ne fajin bu bees ci feebaru sida fii ci Sénégal am nañu ko di rek li nga xam ni mooy euh, prophylaxie préexposition waaye docteur Safiatou Thiam moo ngi xam li rek bëgguñu rek nit ñi daal di bàyyi di jëfandikoo li nga xam ni moo di préservatif si l'observateur la ñuy desandi ngir wax ci mbirum Mouhamadou Sall yéenekaay bi ne moo ngi dund lu métti jamono ji moom douanier bi nga xam ni rek moo fi faatoon doomam bu jigéen ndax daa jëloon bopp bi rek daal di koy dóor ci lavabo bi ndax doyen des juges sàkku na ci procureur topp ko ci mbirum assassinat wala meurtre ñu jeexal ak stade yéenekaay bi nag moom daa xamle rek ni gannaaw bi mu lajjee si digganteem ak Maroc équipe nationale bu football bu Sénégal dina jàmmaarloo tey jii ak waa Mauritanie bu 19 jotee maanaam ci timis bi foofee ca Thiès fii la ñuy ndarkeepee li si yéenekaay yi ma delloo leen seen i nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.